biñ ci am euh, comme dañuy wax ne ñu ngi axiru zaman mu jëlu jamono yooyu yëpp day daal di am waaye ñu daal liñ ci xam mooy dañuy ñaan euh, njaboot bi yëpp ñu delluwaat seen xel xam ni yoon bu baax ñëpp xam nañ ko kanta nag ngàññi ak wax bu ñaaw moom du yóbbu kenn ci kanam au contraire dafay delloo nit ginnaaw boo delloo yowmal qiyaama dee dem fekk sa borom nga am règlement de compte ak moom bu mu war a réglé kon dañ leen koy ñaan ñu bàyyi ko waaye dañuy ñaan aussi ci autorité yëpp fii ak àddina bi yëpp nañ ci jël ay mesures parce que loolu moom mun na indi guerre mun na indi problème mun na indi fitna parce que ko toog ñu saaga sa sëriñ wala ñu saaga sa baay wala ñu saaga sa mbokk du la neex te loolu nekkuloon sunu aada ñun Afrique Afrique fii li ñu ko doon xamee jikkoy rafet kon bu fekkee ne jikko yi ñëw na fi amaana bitim réew lu ñu ko jëlee indi ko waaye nekkoon sunu jikko waaye du la rafet moom. ala kulli xaalin wax bu ñaaw saaga jëf lu ñaaw du rafet. kon nañ ci góor góorgóorlu lu baax a baax bàyyi ci xel surtout nag góor yàlla yi nga xam ni téeméeri at wala ñaari téeméeri at ñu ngi seen seen i bàmmeel wala ay yonent ñu wëlbati ko di wax wax yu ñaaw te ñu liggéey fi li ñu fi liggéey ba tey ñun ñi nga xam ni ñi ngi nekk seen i taalibe wala nekk seen i sët wala nekk seen njaboot euh, ñu siggin ci loolu ñu defal ci jukko jikkoy rafet ak diine wax dëgg yàlla loolu moom du wor ma baaxul santul yàlla ci gouvernement bi ñaan ci gouvernement yëpp ñu jàppaleñ ci loolu pour mu dañ fi euh, te wax dëgg yàlla réseaux sociaux bi ñu koy def pour liggéey la woon waaye du pour wax bu ñaaw loolu moom la ci jàngante li ci rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam wax rasulillahi dafa ni man satara ayba muminin satara allahu ayuba yawm alqiyama ku suturaal ñaaw teefu benn julit mu ta doon yàlla dina suturaal sa ñaaw teef yow yawm alqiyama kon liñ ci wax mooy wax dëgg yàlla àddina sutura la euh, wax bu ñaaw ñoo boo waxee nit ko wax bu ñaaw mënul ko wax la wax bu ñaaw xanaa xamante ñu ni diw saaga na baayam saaga na ndeyam ñu ni kañ saaga ñu di fa saaga diw diw saaga baayam ak ndeyam parce que moo ko saaga parce que ñu ñun sax dañ ko daan wax da nga Sénégal fi da nga daan ni boo yëkkat sa loxo ni faalew ma kenn kenn kenn faalew ma kon koo saaga mu saaga la ak ko mënta doon waaye dafa nekk li nga xam ne rafetul sax du dundu euh, humain du dundu humanité ni taxaw di wax yenn wax yu ñaaw yi kon dañuy ñaan xale yi ñu bàyyi xel ci loolu xam ni ñuy doxalee comme ni ko seen bàyyi seen maam yi di ko doxalee.